Abdurahman ibnu Awf ñii day kenn gënul leen yelloo njiit gi mu ne sama doomu Abdullah ibnu Omar nag lu ngeen def mu fekkee waaye yoonam nekk kooku day waxul na ko doomam doon la mu ne kon maa ngi leen di dénk ku nar a nekk xalifa ci sama gannaaw kooka rek lay dénk ne na def ak njëkk muhaajiruun na def ak na leen jox seen xàq waaye maa ngi koy dénk aw yiw ci lansaar lansaar ñi nga xam ne tabawa u daara wal imaana min qabli te it na rafetal seen diggante na leen baal na nooy ci ñoom Abdullah ibn Omar ne Omar ibn al-Khattab ne ibnu Abbas génnal nga woo jullit ñëpp ñu daje nga laaj leen ba xam ndax nii ñu ma def jullit ñëpp la neex kon mayit mu neex ma wala boog neexut jullit ñi wala yëguñu ko ibnu Abbas dal di woote dal di ne ayyuha nnaas an mala'in waridan minhum kaana haza minkum kaana haza nit ñi ne maazallahi ma alim na noo ngi muslu ci yàlla bokkun gërëmun yëgunu ko d'accordul ci Ali ibn Abi Talib di dugg si ci Omar di ko seet Omar ne ko Ali ndax lii ma def yéen la neex wala neexul leen su leen neexee day ma it ko neex na ma Ali ibn Abi Talib ne ko wadidna an Allah zaada fi amarina fi umrik noo ngi doon mébét yàlla jël ci sunu fan yokk ci sa bos yow Omar ibn al-Khattab kon lii neexul Omar jël boppam teg ko ci tànku doomam Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab ba yàgg Omar ne Abdullah dindil sama bopp bi bàyyi fu mu tegu ci suuf tegal sama lex bi ci suuf Abdullah bañ mu xool ko gëdd ko ne ko bàyyi sama lex bi mu tegu ci suuf mu bàyyi lex bi tegu ci suuf Omar ne al waylu li Omar wa li ummi Omar in lam yaxfir allahu li Omar Omar ne tokkere ñeel na Omar ak yaayu Omar Omar day tey ma ngi jublu ci yeneen ci ma ngi jublu ci mu ngi génn àddina waaye su su yàlla baalul Omar day xaw ma fu Omar ji su fekkee ku toll ni Omar ibn al-Khattab moo toog ba jàkkarloo téeb yàlla ba naan su ma yàlla baalu Omar toog kere na eh kon naa ko warul kenn kenn xamul foo jëm kenn xamul looy mujjee moo tax Omar ne alwaylu li Omar wa li ummi Omar in lam yaxfir allahu la gannaaw gi mu ne ndaxam day wax ngeen ne naa bàyyi xalifa waaye su fekkoon ne tey fekk na abu ubaydata amir ibnul jarraax di dund ci kaw suuf kon tey moom lay def xalifa ndax kon it su ma demee àllaaxira yàlla ne ma kan nga bàyyee xeetu yonent bi dinaa ne ko déggoon naa ki nga yónni woon di wax ne sami'tu abdaka wa nabiyyaka Muhammad yaqul li kulli ummatin aminun wa aminu hadihi al-umma Abu Ubaydata Amir ibn al-Jarrah su ma yàlla ne koo bàyyee xeetu yónni bi dinaa ne ko déggoon naa ki nga yónni woon muy wax ne xeet wu ne am nañu amin ku ñu wóolu ki ñu wóolu ci xeetu lislaam mooy Abu Ubaydata Amir ibn al-Jarrah su fekkoon kooku ngay dund te kooku deewoon na ca xare ba. fekkoon mu ngi doon dund day kon moom laay def xalifa ndax kon dana am lu ma layal yàlla waaye nag Omar ne jàppaleen ci ñooñu ma leen tuddal daal kenn ci ñoom mën na ko nekk ngeen seet seen diggante Omar teg ci ne su ma génnee àddina na ngeen toog ñetti fan di daje di diisoo di waxandikoo ci seen diggante diir boobu nag amagu leen ilimaan na ngeen seet Suhaybu mu nekk ilimaan ndax moom comme jaam la buñ baal yàlla wóor na ñépp ne ku ragal yàlla la ku xam yàlla la su nekkee seen ilimaan moom du yàgg yàgg ba mu xëccoog yéen xilaafa kon nag ñetti fan yooyu na nekk ilimaan di jiite xeet bi ngeen toog di diisoo ngeen seet kan mooy nekk xalif te itam nag quatrième jour bi ñeenteeli bés bi bu mu ñëw mukk mukk lu mooy fekk am ngeen xalifa ndax mbiri jullit ñi it warul taxaw deewu Omar daal warul tax mbiri jullit yi taxaw foofu rek Omar daal dina astaghfirullah ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la dal di xool bët yi bu baax ruux ga dal di dem ci malawul ala radiallahu anhu radiya mardiya ci saa si Ali ibn Abi Talib daal di ñëw Othman ibn Affan Saado Zubayr ibn al-Awam Talaat ibn Ubaydillah Abdurahman ibn Awf loolu fukki nit la yonent bi ne woon rafet na ci ñoom njoort pour ñu nekk nitu aljan fukki yi mooy ñeenti saaba yi ñi ca topp mooy Saadu ak Saïd ak Zubayr Talxatu ak Abdurahman ila axir ñoom ñëpp ñu daje ca saasa ci kanam Omar ibn al-Khattab ñu sang ko sang ko yenu ko ñëw ci néeg Aïcha diisu Aïcha Aïcha ne marhaban bi Omar ibn al-Khattab sani xalifatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu dugal ko Ali ibn Abi Talib moo dugg ca xabru Omar ak Othman ibn Affan ak Saadu ak Saïd ak Zubayr ak Talhatu ak Abdurahman ñoom ñoo dugal Omar ibn al-Khattab ci xabroom dal di ko defar suul ko ba ñu génnee alin alin bët yi satteeku rongoñ mu dal di faxas sikkim bi faxas bopp bi dal di ne rahimallahu ibnu al-Khattab laqad dahaba bi xayriha wa naja min sharriha dal di ne yàlla yann yàlla yërëm Omar ibn al-Khattab yóbbu na yiw xilaaf ak yonent bi yëpp yóbbu na jàmm ji mucc na ci ay wax jooju lu rëy la tekki lépp lu am ci ay gannaaw loolu la moo tax ali ne rahimallah ibn alxataab laqad dahaba bi xayriha wa naja min sharriha mu dal di jooy saxaaba yépp dal di jooy ndax ñàkk nit ku yiw ku gëm yàlla ku ragal yàlla ku maandoo ku ñeme ku dégg fépp ku dëggu ku farlu ku suufee lislaam yépp dal di jooy ñu dal di ne waxu yonente ba la mu waxoon bu yàgg na koy door a fàttaliku loolu nag mooy yonent bi benn bés jibril dafa ñëw ne ko maa ngi lay wax ju rëy mu ne ko lan la mu ne yaa muhammad la yabkiyanna al islaamu min baadi mawtika ala mawti omar ibn alxataab jibril ñëw na yonent bi lislaam dana jooy ci sa génn àddina yow mi mi yàlla yónni waaye lislaam dana jooyaat gannaaw ga ci génn àddina ak omar ibn alxataab loolu jibril la ko waxoon yonent bi saaba yi dal di fàttali wax jooju wax ji mën nga ko seeti ci téere bu naan ar-Riyaad wa Nadra ca page 28 kon Omar ibn al-Khattab génn na àddina 23 ci gàddaay yonent bi muy 644 mu bàyyi fi Omar ibn al-Khattab bàyyi na fi juróom-ñeenti doom yu góor ak ñeenti doom yu jigéen ñëpp di fukk ak ñett doom yu góor yi Abdullah ibn Omar dugg na ci diine ca Makka moo bàyyam booba gune la mu gàddaay ànd ak moom abdullah ibn omar fekkee na xeex yépp ba mu des uxud ak badar ndax booba amagul at yi mën a dem xeex topp kenn ki mooy abdurahman al akbar am na yeneen doomit yu ñu naan abdul abdurahman abdullahi ñooñu zeynab bintu masoun mooy seen yaay am na doom yu ñu naan zeydun al akbar kooku ummu kaltum bintu ali moo ko jur dencoon na doomu ali ibn abi talib ak ku ñu naan asim asim ko naan jumaylata bintu asima ko jur amoon na doom ji naan abdurahman al awsat atikata bintu zeydin moo ko juróon am na kuñ naan zeydun al asgar ak ubaydullah ñooñu mulaykata bintu jarwal al xuzaiya moo leen jur doom yu jigéen yi xafsatu umul muminin moo ko abdu abdullahi ibnu omar a bokk ndey ak abdurahman roqiyatu moo zeydun al akbar ñoo bokk ndey fatimata muhakim bintu xarisa ko jur am na kuñ naan zeynabu fukkayata ko jur ñoom ñëpp doom yooyu nekkoon nañ ay boromi xam-xam nekkoon nañu yiw ana lan la ñuy jëlee ci Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu danaa indi fukki mbir ak juróom yu ñu mën a tiré comme conclusion ci dundu Omar ibn al-Khattab bi ci njëkk mooy maandoog Omar bu ñu war a roy xalifaam ba maanaam gouverneur am ba nekkoon Égypte mooy Amr ibnul Aas doomam dafa def course di rawanteeg waa Égypte benn égyptien raw raw ko mu jege waa ji ko raw rek dóor ko karawaas ne ko xudha wa ana ibnul akramayni yow mi ma raw karawaas googu la lay jox ndax man may doomu ñaar ñu tedd ñi waa ji daal di bind pelantam yónnee ku ci Omar ibnul Xattaab ñëw ne ko damaa course ak doomi sa gouverneur bi ma raw ko mu caw ma bi yar te ne moom mooy doomu ñaar ñu tedd ñi Omar daal di convoqué gouverneur bi Omar ibnul Aas mu ñëw mu ne sa doom ji karawaas gi mu dóor kii mënu ko ndax moo ko raw ca rawante ba yow yaay gouverneur moo tax mu ñeme ko dóor kon nag waa ji na jël yaram bi dóor ko ci sa leel bi yow gouverneur Omar ibnul Xattaab ñu xam ne yàlla rek tëdd ak ku gëm yàlla ñu jox waa ji yar bi waa ji ne Omar ibnul Xataab baal naa ko ndax sag maanute ak njubug lislaam xam naa ne dëgg rek fii nekk benn ngo ñaareel bi Abu Hurayrata ci solokatu hadis yi la Omar def naa moom ñaari mbir Abu Hurayrata ma ngi bokkoon ci alu suffa ñi nga xam ne dañ daan toog rek ay sufiyanke lañ farawooy jàkk ji di julli rek ak woor ak tudd yàlla daawuñu liggéey dara ak solo hadis Omar dafa ñëw ba mu faloo ñëpp dafa jël yar caw leen dem leen liggéey inna samaa la tumtiru zahaban wala fidda yàlla du taw wurus wurus du taw xaalis dem leen liggéey Abu Hurayra ci la bokkoon Omar ne ko ñëwal ma def la gouverneur nga dem Bahrain Abu Hurayra dem Bahrain ni yëguñu rek mu am ay gétti nag ak fas yu bari Omar bind ko leetar ne ko faloon naa la gouverneur bi ngay dem amoo ñaari dàll sax yow léegi nga am ay gétt alali jullit ñi la foo ko jëlee te lu mooy li nga am kon jaarut yoon Abu Hurayra ne ko dama amoon aw fas mu jur ay fas yooyu jur ma jaay ko jënd ci nag nanga mu ne faluma la ngir ngay yaxantoog ngay wur ak jur jël lépp delloo ko ci baytil maal loolu Omar a ko def ñetteel ba Abu Musa al Ashari Omar da koy yebal mu jiite benn xare Abu Musa ba xare ba jeexee mu séddalee maa nga gën jëlee ci xare ba am benn soldat boo xam ne la mu koy jox daal dëppoo lu mu war a am soldat bi ñëw daal di contesté Abu Musa summi ko ca mbooloo ma dóor mu ñëw ci Omar ibn al-Khattab nettali la xew Omar bind lettre Abu Musa gouverneur bi ne ko na nga summeeku ci digg xare bi waa ji jël yar bi dóor la na nga ko dóoree woon toroxal la ci digg nit ñi nga xam ne jullit ñëpp ñoo yem kenn warul toroxal ab jullit ci lu dul dëgg Abu Musa jot lettre bi ne dégg naa ko danaa ko def ni ko xalifa yonent bi defee summeeku jox waa ji bi yar waa ji ne baal naa la fekk Omar ibn al-Khattab mu ngi fi rek nekk l'islam dana maam ci loolu ku ñaan Jubaylat ibnul Ayham benn ci ceddo yi jóge woon ci réewi Iran yi la dafa tub dugg ci diine ji waaye ba tey ma ngaa nguuram ko mu ñëw di tawaaf ci kaaba gi xarmal di tawaaf benn arab dal di dëgg ci la ko xarmalam mu geesu ko rek bitti loxo ko bakkan ba toj mu ne man maay buri ceddo yi ngay dëgg sama xarmal waa ji dal di jooy ñëw ne Omar ibn Khattab xoolal ni ma jabalat ibn Ayham def mu ne ko lu tax nga def ko lii mu ne dafa dëgg sama la fu xarmal Omar ne ko dëggaatal la fu xarmalam mu pes la ba sa bakkan toj ñëpp ñu war a yem fa kanam yàlla daal di woote benn cérémonie ne dafay def ci kanam nit ñëpp waaye ndeke waaja daw na ca guddi ga far murtat génn diine jëm Sham loolu Omar a ko def Omar ibn al-Khattab gis na benn jigéen bu sant jaw porte plainte jëkkëram ñëw ci kanam Omar ne bëggatul jëkkër ci nga xam ne Omar du ne dafa xiif rek te maando waaye dafa am xelit xakim la Omar xool sëñ Mor Seck mu tilim lool wéye guddalool tilim mu wóor ko ni lee tax ndaw si bañ Omar a ndaw si demal ba ëllëg ngeen ñëwaat mu jël waa ji digle ci daggawe yi wat bopp bi sang ko Omar defar ko ay yére jox ko gëtt mu xeeñu ci ëllëg sa ñu daje mu ne ko téyel ci sa loxol jabar ngeen ñibbi mu téye ci loxol ndaw sa ñu ñibbi ndaw si xàmmewu ko di bañ naan xoolal seytaane si ma bëgg a téye amirul muminin mu nekk kooku kat sa jëkkër la ndaw si daal di ree kontaan ci kooku ñu ànd dem Omar moo def loolu bokk na ci conclusion yi jëlee ci Omar moo di ne fukki mbir a ngoog gannaaw juróom yooyu fukk yi nag ci Omar la ne di ñaan kuy déglu nga jiyam fukk yi loo ci man mu ne ci yow benn nga dëggu ci sa gëm yàlla bay bidaa ak caxa ñaar njambaar ci feeñal dëgg feeñal sa xalaat ci diine ak lu mu la mën a coûter ñett na nga dëgër ci noonu yàlla na nga suufe ci kanam jullit ñi ñeenta nañu topp suna si yonent bi ci béréb bu nekk ci jamono ji nekk juróom nañu maando ci wax ak ci jëf ak ci attee juróom benn nañu sukkandiku ci yàlla bu caaxaan jeexee bu ñu ragal kenn kuñ bind ku mooy yàlla ci dëgg ak luñ la ca mën a yedd itam juróom-ñaar nañu wéetal yàlla xam ne moom dong moo di yàlla kenn bokkul ak moom nguuram ga mooy jéggale mooy rey mooy dekkal moo am aljanna moo am safara mooy wërsëgal mooy xañe te ku yaakaar ku duur yàlla sa yaakaar xal naa tas juróom-ñett nañu bàyyi fo bàyyi indi fitna bàyyi taal safaraw fitna bàyyi dog ak bopp bàyyi tasaare ay nit lépp loo xam ne day indi fitna nañ ko bàyyi te bàyyi itam yi nga xam ne moom la seytaan yi rëdd pour nu ci jaar pour nu teqalikoo ci suñu biir juróom-ñeenteel ba mooy lépp lu nu yàlla may ci am-am nanu doy loo loola te jàpp ca bu nu am yaakaar ju jéggi dayoo ci leneen lu nekk ci loxoy jaambur ya loolu itam du jikkoy ku gëm yàlla fukkeel ba te moo ci mujj mooy nanu yërëmante ci sunu diggante nanu dimbalante ci sunu diggante nanu rafetalante ci sunu diggante nanu ñoŋal sunu deru mbokkum jullit mu fi nekkut buñ ko xas bu fi nekkut su ko keneen di xas nan ko ko aayee nan ñoŋal deru jullit ñi fi nekkul ak seeni der te ñu rafet ci ñoom njort aman na ki ngay xas ci waxtu wi fi nekkut moo la gën aman na yaa nga ak yeneen ayib yoo xam ne soo ko toppatoo woon dootoo am joti seet ayib yi keneen comme ni arab bi wax lisaanaka la tasfur bihi awratam ra'in fa kulluka awratun walinnaasi alsinu mu ne sa làmmiñ wi bu ko boyal ci ayibi jaamur yi di ko wax yaa ngi bari ayib te nit ñi am nañuy làmmiñ ci am na aman na xam nañ ko kon ku nekk na nga yittiwoo sa ayibi morom balaa ngaa dem ci ayibi jaamur loolu la ñuy jëlee ci leçon bi di ko tiré comme conclusion ci Omar ibn al-Khattab wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulilah wasalatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi kon na nun jéem am yu nu tontu ci seen laaj yi bu njëkk bi borom daf ko yónnee ñu ko dencee ba ñëw itam ñuy ñaan est-ce que ñaan yooyu bidaa la wala déet ci tontu loolu maa ngi ko yëgal ne jullee gi ñaan la waaye ñaan spécial la ndax ñaan la gu am ay kabbar ak i sëlmal bokkut ak nag mutlaqu du'a ñaan gi nga xam ne kenn tënk ko kooku moom mën nañ ko def gannaaw bu ñu robee wala ba déwén ba déwén jéeg loolu tax nit ki di ñaanal ay bokkam yu deewoon daaw ak daaw jéeg ba léegi kon mën na am daal te ñaan warul mën a doy moo tax it mënees na ko rafetlu ko jaaralee ci yoon wa rek benn ki kenn ki benn jigéen la dafa ne du war a mën a ñëw fii ci taxaw ci kanam waaye mu ngi toog ne na jigéen bu fekkee dañ ka dañ ka fase te fekk mu ngi nàmpal te mu bokk ci ñi nga xam ne suñuy nàmpal duñ gis deret yeddam ñaata lay diir yu tontu loolu nan dellu ci alquran rek alquran moom moo ñu waxal edd yóbb jeexal ko alquran ni na ñi nga xam ne dañoo naagoo ne duñ gisati deret ngir mage wala lam yaxidu na ñi nga xam ne dañoo tuuti ba gisaguñu deret alquran ni na ñooñu seen edd ñetti weer la kon benn jigéen a ngoog dafa ndawee ba gisagu deret kii dafa mage ba gisul deret seen edd ñetti weer mu des beneen jigéen boo xam ne dafa ëmb alquran ne ulaatul ahmaal yi ajaluhunna an yadaana xamlahun alquran ne ñooñu seen edd ak bu mën doon mooy bu ñu amee doom xanaa mu des bon kenn mooy ki nga xam ne ndawewul màggatul ëmbul kooku yeddam ma ngi toll ci gis deret ay deret la donte buy nàmpal du gis deret itam dafa nar a yàgg rek edd ji gannaaw gi mbokk yi sëriñ Abbas Seck mu ngi koy gërëm di ko delloo sant naka noonu Ibrahima Seck itam a ngi koy yëgal ne aman na sax mënoon na ma jéem a gëstu baatu administration di ko wax ci wolof waaye li ko dal rek moom Ibrahima moonu dal ndax moom li mu fi wax genn wàll gi yëpp ay tubaab la li am solo rek mooy jéem ba xam nit ki li muy wax jéem rek ba ba xam ko ndax it làkk day duggante mbir mu nekk ñi ko indi lañ koy wax lañ koy wax guro ñi ko fi indi liñ koy wax lañ koy wax gerte fi mu feeñee ñu ngi koy wax boo demoon ba Liban it gerte rek lay tudd wala feneen it noonu rek la fay tudd leneen it noonu administration bu wolof dafa wuute woon ak bu ñi ñu colonisé ñi ñuy colonisé ñoo fi indi véritable administration maanaam ca turam dëggam ba ñoo ko fi indi moo tax nu di ko waxee rek ni ñu koy waxee alhamdulilah bu ñu ko waxee ñu xam lu muy tekki waaye su neexoon dañuy jéem ko wutal. nu muy tudd ci wolof waaye mbir nag boo ko amul doo ko amal aw tur te dañ koo amuloon moom nañu wax doxalinu nguur waaye loolu xam nga firi la duwul aw turam moo tax ñu yaakaar ne fexe bañ dégg ko rek moo ci gën a am solo islamologue lañ nag duñu linguistique bu fekkoon ne ñiy jagoo loolu la amal na ñoom ñu mën koo sàkkal yeneen tur sidna Umar ibn al-Khattab ay soxnaam weesu wu ñu woon ñeent danaa la ci tegal di la confirmer ni amul benn saxaaba bu takk lu ëpp ñeenti gor amul loola xadis yëpp ñu ngi ànd ak man ci loolu am naa ndax am na beneen ndigal wala fu ñu mën a jaar ba takk lu ëpp ñeenti gor tontu naa ci wax naa ne yeneen si bi xadis yi saxaaba yi defuñu ko woon pour ndigalu keneen loolu dama ko bëgg a bàyyi kooku rek nawle beneen laaj bi nawle ci lislaam bu leen di jaxase nawle am na kat nawle lislaam saxal na ko yonent bi alayhi salaatu salaam nee na taxayyaru li nutfikum fa inna al-uruq dassaasa su ngeen di denc jabar na ngeen di tànn seen toqante mën yi fu ngeen kaa def ndax ay sëdi dëy kooku cosaan la ci nawle dafa tolloog lan teg nawle ak la ko lislaam teg loolu rekk bokkut nawle gi lislaam daal moo di ne nga tànn ñi jub ñi am diine ñi ragal yàlla ñi am ngor ñu fegu kon nag nawle am na waaye danoo bokkut nun koy déggee waaye nawle am na bokkul ak nag ñun suñ bos Ibrahima Samb sidna Umar ibn al-Khattab ba mu duggagut ci diine masul ñàkk yére ndax masul ñàkk alal fuqaraa muslimin Umar masu ci bokk kon nag mu muñ def nanga mu daax daax buñ ko fóotee muy xaar histoire saxalu ko tey li net li ci Omar moo wane ne melutoon noonu ku amoon personnalité la ay moroom kenn mosu koo man ñàkku la woon rablewutoon li ci am solo rek moo dina rëyutoon na mu daan solo ba mu faloo gut ba mu nekkee buri jullit ñi it noonu la daan solo looloo ci am solo ci Omar ibn al-Khattab Abdoulaye Dia Muawiya nettali naa ci sama wax nettali naa ci sama wax ne moom la ñu defoon mu nekk gouverneur bu Syrie yàgg na fa lool amoon na diir bu ñu ko folli amoon na diir bu mu fa dellu ci histoire bu gudd yebal naa la ci fitnatul kubra bu docteur Taxasee ca ngay mën a am li la doy ci loolu parce que xis bi xëjut fii Othman conseil technique la woon bu Omar ibnul Xataab jiite lépp lu aju ci littérature bind bind alquran nekkoon secrétaire wax yu gi ngir yonent bi ak Babacar ak Omar ibnul Xataab itam Omar daawul def lu Ousmane fekkewut comme ni ko Babacar daan diisoo te loolu soo demee ca docteur Saad Atlas wala amul ay al al Ferozi bi ma la wax léegi da nga fa fekk wax jooju kon nag nekkoon na ku daan dem ay guerre di ànd ak saaba yi daana dem sax Omar yebal ko guerre te du jiite mu nekk ci biir soldat kon nekkoon na soldat waaye nekkoon na conseil technique jàngkat ndax moo daan bind wax yi ga te moo doon secrétaire bi ñuy bind alquran loolu nekkoon na ci yu Omar daan Ousmane daan liggéey taxut nag ma wax ne peeg naa yi Ousmane doon def yépp ndax tey étudié wuñu Ousmane Iran ak Irak ñoom ñaar yëpp amoon nañ am nañ it ba léegi ndax wax naa ko nettali naa ko dañoo ubbi bii dem ubbi bii ak bu ci ne waxoon na ñett capital ci nekk bu fekkee fekke woon nga bi may wax kon da nga xam ne amoon nañ ndax ba ba ñuy jëm Omar muy daanu Aliyun ak Ousmane ña nga fa yàlla xam aman na bu ma ko gëstu woon mën naa la ci jox ay précision waaye lii loolu dafa maa taxut a jóg tey Alioune Fall kon da nga baamtuwaat laaju Abdoulaye bi kon tontu naa Alioune Faye ndax Omar bis biñ ko jamee la faatu déedéet Assane Gueye ak la Ibrahima Samba waxoon ca Omar doon caw doomam di tudd nu mu wax abo abo Chahmata Omar ibn al-Khattab daal li ko taarix xamal ci doom yu góor yi juróom-ñaar la Abdullahi Abdurahman Ubaydullah Zeydul Akbar Abdurahman al-Awsat Zeydul Asgar Abdallah yu jigéen ñi Xafsatu Ruqiyatu Fatimata Zeynabu loolu lañ ko xamal ci doom xamaluñ ko abo Chahmata lii daal la histoire saxal ne ñu moo di ay doomam boo demee ca taarixul xulafaa rachidin bu Muhammad Asad Palas loolu nga cay fekk kon bu amee contradictoire wala bokkut ak ni nga déggee kii day loolu la wax wax jooju laa indi kon waxi kookal xamal nañu Omar ne appliqué na l'islam caw na ay nit ci njaalo waaye xamaluñ ko ku mu caw ci njaalo ba mu dee rawatina doomam taxul ma ne amut waaye xaw ma ko biram njaay ne nga ma su fekkee ne nit dafa dee nekk kalaala te béytimal amut fi ñu koy jëme kalaala tekkiwul ku ñàkk ku ko doon dangaa réeree kalaala xam naa